fan ngeen teg naan yéen yéen a tax ñoom Barthélemy nekk maire yéen a tax ñu bari nekk maire nekk nekk député te yéen Khalifa Sall di gagné euh, capital bi la capitale sénégalaise depuis 2009 fan ngeen teg loolu El Malick wax na ko démb euh, devant devant devant devant Pape Alé Khalifa Sall di gagné 2009 boobu yéen yegg seegu leen ci politique xamu leen woon sax ndax di ngeen politique 2014 Khalifa Sall raflé sur 19 communes 17 communes deux mille vingt deux bii bu ñu jëkkatee maire bi jox ko Barthélémy jox ko un homme de Khalifa Sall c'est parce que vous avez jugé que avec un homme de Khalifa Sall vous avez plus euh, plus plus de chance yéen ngeen bëgg a décréter na yenn yéen yéen a drainer ñeneen ñi. léegi loolu ñaari réponse moo ci am première réponse bi mooy ñu bokk ci mouvement taxawu ak yeneen parti ñoo fi taxaw ne bu diw ñëwoon bu Ousmane Sonko ñëwoon sama gox man ma gañe wala ay nit. par exemple le maire de Guédiawaye. c'est du déclaratif quand même magum jëm oui ça ne repose oui, sur rien du tout écoute-moi dañuy neexal Ousmane. waaw oui ma oui ma loo xam ne élection yi jàll na li ngay jot jot nga ci ba pare magum jëmm nga tiimaluñ la balu fetel euh, sexaluñ la lem nga taxaw ci ci fu la neex ne bu diw ñëwul woon du ma gañe franchement man. mais waxu politicien la bàyyi ma pare bàyyi ma pare loolu mooy première raison ay nit ñoo ko wax ñaareel bi mooy. loolu du du ay nit kese ñoo ko wax de loolu sax ñi koy wax bëgguñ ko woon wax ñu si bëri am na ñu ko wax te bëgguñ ko woon wax mais muy chroniqueur yëpp muy journaliste yi bëri na ñoo xam ne dañoo bind ne la vague Ousmane Sonko moo emporté la coalition Yewwi loolu ñu bëri dañu ko bind te man ma jàpp ne c'est la réalité mais l'un daal l'autre képp ku ñu fal. amu leen benn baromètre. non waaw déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma man dama lay wax position wu ñii position wu ñële. dama leen Grand Yoff Boubacar Camara très proche de Ousmane Sonko il est parti il a eu mille voix. est-ce que Ousmane Sonko a soutenu Boubacar Camara. waaw mais il est il, Ousmane eh, Boubacar est un soutien de Ousmane Camara. Ousmane de, de, de, Sonko def na fi conférence def na fi déclaration. ne d'accordul ci benn liste parallèle. campagne gis bi ñuy investir euh, Barthélemy Diaz à Dakar Grand Yoff la ko defee ma jóg mi ngi donc wax dëgg yàlla. il a été loyal jusqu'au bout avec la coalition ànd nañu xeex nañu gagné nañ les sénégalais nit ñi xam nañu gis nga sondage dafa yomb la perception elle est populaire boo génnee si mbedd yi dugg ci jàng yi dugg ci kaar yi dugg ci la perception ou les réseaux sociaux muy fépp restaurant yi nit ñi xam nañ am na loo xam ne mënu ci dugg mais gis nga certains certaines personnes devenues maires appartenant à d'autres mouvements loo tellement compris que ba contexte boobu bi ñu fa nekkee bi ñu si yeggee jamono jooju ba ñu naan kan nañuy investir kii wala kële dañoo bàyyi seeni seeni chef de parti <laughs> mais amul lu ñu langalul Ousmane Sonko parce que xam nañ ne <laughs> ginnaaw yàlla moo fëgg ci table bi ne diw dafa war a nekk candidat. mais xam nañ ne ginnaaw yàlla moo ci def lu war ak lu war pour ñu mën a gañ. waaw mais xam nga tamit. te jamono jooju ils tellement compris ba <laughs> am na ñu bàyyi seeni seeni leader. mais amul amul lu ñu defal Ousmane Sonko pour ragal ko. <laughs> loolu bu ci yeggee ñu war wax dinañ wax. li ngay wax nii. mais nag c'est pas notre priorité. xam naa ko y a eu des leaders même qui ont été obligés de recadrer euh, leur leur militant parce que à un moment donné tu te demandais ndax militant wu Pastef la am am am am am déet mais affaire bi réalité bi mooy mooy le baromètre sur le terrain c'est-à-dire mu leen taxaw tey jàpp ne. Barthélémy Diaz bu nekkee maire yéen a tax alors que Khalifa Sall a le contrôle de la de la capitale depuis 2009. Sénégalais yi euh, c'est c'est c'est insensé quand même. Dakar waay xam nañu kan moo tax ak lan moo tax pas kan parce que en réalité nit omnipotent wut ndax moyens yooyu mu consentir ak légitimité populaire bi ko yàlla defal <laughs> yàlla la neex mu def mu defal ko ko askan wi épouser son discours mais Ousmane Sonko déjà en laa la wax déjà présidentielle avec coalition boo xam ne ñi si nekkoon ñu bëri dañu jàpp ne amuñu représentativité cent un mille voix la amoon dans la région de Dakar boo jëlee la coalition méga de Idi avec ñoom Khalifa Sall ñëpp ñëpp mais cinq mille voix dañ ko ëppalee su ma juumul cent six mille lañ amoon ñun ñu am cent un mille bu amul bu amee bu dee am na différence ci biir bëriwul Khalifa Sall était en prison son électorat s'est éclaté ñenn ñi ànd ak Idrissa ñenn ñi dem ànd ak Ousmane Sonko. ñenn ñi se sont abstenus peut-être que sax certains ont voté Macky Sall. c'est possible c'est possible c'est possible mais yow xam nga ci coalition à chaque fois la position officielle bi leader jël mooy ramasser l'essentiel de des des des des voix. mais surtout ci surtout ci opposition xam nga lu tax euh, pouvoir ay liste parallèle su amee am nañu chance pour gagner parce que souvent mun nañu investir koo xam ne amul légitimité te. kooku noonu bu dee doomu gox bi la ki def liste parallèle mën na sax xaw a ñuru opposant ba askan wi votel ko donte ci pouvoir bi la bokk parce que dañuy bëgg jëlee fi ki fi nekk wala koo xam ne mooy incarner parti au pouvoir contrairement à l'opposition ñu ñu jox légitimité ba yow ñoom nga ànd ak même su dee da def liste liste parallèle à bon droit parce que danga jàpp ne principe yi lii la amuloo benn chance fan la yeew yi defee liste parallèle nit yeew yi def liste parallèle dee am na ci Sénégal peut-être. alors nga ñu ñu ñu terminer. Euh,